Euh, Ouz ginnaaw bu ñu la nuyoo ba pare ñu bàyyi la nga nuyu askan bi ñu ñu waxtaan ci ci ci ci li nga xamante ni moom lañu ñu moom la ñu dund récemment muy choc bu métti fële ci Kaffrine ñëpp di ko naxarlu ba ñu décrété deuil national trois jours bi ñu la nuyoo ba pare bàyyi la nga nuyoo askan bi ana sa jàngat ci loolu. waa li ma ci jàngat rek mooy en tant que sénégalais et puis jullit dëkk ci dëkk bi naxarlu ko kon ñëpp ni ko naxarloo. aussi tamit di sant yàlla te xam na ndogal bu jóge sama boroom la ay jullit dong lañ donc euh, yàlla moom moo jëlaat mhm. kullu nafsin saa'iqatul mawti mhm. waaw bakkan bu ñam dunu di nga ñam dee mhm. waaye tamit nag euh, dee yu ci bari loxo loxo loxo yi nit des fois da ci sàggante da ci da ci da da ci amaale lu ci mel ne sog bi sàggante am na ci tey euh, euh, dañuy gis lu lu ëpp ci ci ci ci yenn xeetu choc yooyu parce que bu ni mel. Mhm. bon ñu ngi koy soog a gis. Mhm. ak nombre de morts bi ci am. Mhm. mais selon yow Ouz des fois boo gisee gars yi seen dawalin ñenn ñi ñenn ñi yore euh, transport yu mag yooyu noonu ay xale koy dawal daw nu leen neexee ci tali bi yenn saa yi gis ci boo xamante ni bu la rombee day sol ba ci kaw day weng buy buy buy daw tey lan moo waral peut-être bàyyi bàyyi mu jàll yooyu noonu am ci tali bi. waa mais dama jàpp ne manque de responsabilité la rek. Mhm. ak aussi tamit nit ñàkk xam valeur doomu aadama moo ko waral. Mhm. aussi du ci xale du ci mag. Mhm. yar moom amul xale amul mag. des fois mag def dara sax nga jàpp ne. donc xale moo waroon def loolu te defu ko. responsabilité bi donc moo des. aussi mhm. il fallait que sanction yi tamit permis en point bi. ñu indi mhm. ko dëggalaat ko. Mhm. waaw loolu moom maa ngi ci ñaan état mu jógaat si. Euh, taxaw ci te aussi permis yi tamit ñu xoolaat ñi ñu koy jox. Euh, ci âge bi ñuy am ak yooyu ndax aussi tamit man pour man xale bu amee mooy de vingt cinq ans xamul lan mooy responsabilité. dëgg dëgg dëgg dëgg yëf xale lay def. mais nag man daal en tant que. jullit mooy mhm. jàpp ne sama borom dogal bi wàcc na mhm. waaye dogal bu wàccee mhm. ba def jiyee dañ cee war a jàngat lan moo waral lii éviter ba xam na dootul mën a amaat ñu bëri dañuy jël mbir mi di ko politiquer des fois ñenn ñi naan non président bi la jëlul ay mesures nangam ak nangam euh, mais tey je diir tey même bu fekkente ni am nañ ay télé yu te te te jikko yi tamit defaraatuñ ko est-ce que des fois tamit télé bi dire du du problème ci ñun la quoi est-ce que du problème bi ci ñun la que que par exemple tali bu tali bu tali bu tàlli wala tali bu neex a daw wala nangam parce que yenn saa yi gars yi leen neex la def ci tali bi. waaw dëgg la tali yi moom baaxul premièrement. Mm-hmm. deuxièmement tamit li may wax si gis-gis la rek. gis-gis mm-hmm. doomu aadama la doomu mm-hmm. aadama moo am gis-gisam. moo yor xelam kenn du ko orienté ci li mu bëgg a xam. ak li mu bëgg a xalaat di ko wax. waaye li ma mën a xamal mooy lii. ay politique mbiru àdduna. du ay politique du affaire de la Sénégal nag dafa metti dafa euh, da ngay am sa yéene bu baax sax di dem fenn ñu ne non kii am na lu mu si jublu wala dara. Mhm. président Macky Sall lii am en tant que président de la république mu déplacé wu def mais lu ko war la. Mhm. tey bu ko defutoon nit ñi ñooy génn ne carrément deful li ko war. Mhm. def na ko tey ñu ne day politique. kon nit ñi kenn xamul liñ bëgg. man daal li ma ciy delloowaat ndaw ñi. mooy ñu góorgóorlu. ci jaamu yàlla. góor góorgóorlu ci set góor góorgóorlu ci bëgg dara mhm. waaw loolu laa xamante ne mhm. euh, ñu góor góorlu ci mhm. aussi tamit état bi tamit moo xam ne njaboot ji ay njabootam la dañ koo dénk pour ñu sàmm ndaw ñi sàmm mag ñi sàmm réew mi mu jël ay responsabilité am defaraat tali bi ay daan day ndax yàlla mi ñu sàkk moo ñu sàkk ñu gënal ko lépp lu mu sàkk daa teg ay daan suñu wet ne lii boo ko defee lii ci la fekk. Mhm. ndagam moom moom mën loolu asam président Macky Sall mi nga xam ne loolu lañ ko dénk. Mhm. su ko defee def na li ko war bu ko deful deful li ko war. Mhm. mais li ma la mën a xamal mooy. il fallait que ñu casé waat. du ma ne transport bi de ñu casé waat. Euh, code de la route bi. surtout surtout doguma la sax mais. Euh, bokk na ci li nga xamante ni moom moo causé choc bi. mooy que ni benn ci benn ci oto bi ci oto yi. yi doon daw. di créer choc bi. ay pënam ñoom ñoo nekk woon ci état. Mhm. ba mu jot a toj créé jëye boobu noonu des fois visite technique aussi des fois da koy da koy laaj quoi. waaw visite état wu oto yi surtout. waa visite technique moom ku ne xam na ne visite technique Sénégal moom. Mhm. loo ñàkk xamadi xamadi oto yi lay romb di circuler ci capital bi sax xam nga ne mhm. lii. sax mosu ñoo jaar. waaw lii wax dëgg fa yàlla waruñu daw sax. waxuma la visit technique mais dañoo warta daw. waaw xam nga ki warta daw moom daa warta dem sax visite. car daw. ñu bëri ci. waaw euh, tamit deux deuxièmement mooy. Mhm. il foog nit ñi tamit ñu xam doomu aadama. bakkan. Mhm. Mhm. la mu lim jaral sun sunu boroom. ak euh, bakkan ban ban ban responsabilité la am. ñu sàmm nit ñi ndax bakkan boo ko yoree. tamit ñuy gën a góorgóorlu chauffeur yi ñu gën a góorgóorlu ci xam valeur doomu aadama. ñu jéem a sàmmanteeg seen bopp ñuy lichit xam responsabilité. man gis naa ay chauffeur yi chauffeur boo xamante ne da ngay xam ne kii lichitul. ay gone yu ndaw doo licite doo def dara bëgg a def na ko sudul noonu mënul mm-hmm. nekk mm-hmm. waaw li may conseillé ndaw ñi mooy ñu góorgóorlu mm-hmm. te xam seen responsabilité sàmm seen bopp te góorgóorlu bu baax te état bi tamit mu jël ay daan teg ko ci tamit c'est très important bokk na bokk na ci yu mel ni nan par xam nga ñoom dañuy commerce ay dañuy business tey transport ku ne xam ne ne versa yi moom luñ ko war a dindi ci biis yi la Versailles dañ ko war a dindi si biis bu ne ñun tubaab yi gënuñ ñu. Mhm. pourquoi tubaab ñoom li ñu yéene seen bopp ñun mënuñu ko yéene suñu bopp. Mhm. lu tax tubaab bi def lii ba pare yow nga ñëw déformer lim def multiplier ko par trois pour lan gagner business mhm. loolu c'est pas normal ah. ñoom ni ñu demee ba sàmm seen njaboot sàmm seen réew ñun noonu la ñu war def. wala ñu gën yenn yenn saa yi askan bi de fois gars yi ñoom ñooy dugal seen bopp ci guuta de yenn saa yi da nga ñëw fekk oto boo xamante ni leer na ni il est pas en bon état. lii jëmewul la sax Colobane sàkkantuma la ak nga jël sàmm ci sa bakkan est-ce que ñu ni des fois jorut des fois ñun ñuy xool cest à anam bi ñuy voyager en fait parce que man du ma gudd ba pare dugg ci loo xamante ni tey ji su ci toogee du ma nekk ma du ma nekk non du du loolu mhm. xam nga tey mhm. yow amoo mhm. boo yoroon sa xaalis di jënd sa da ngay dem sa oto yi ñu tijji la oto bu ci nekk nga dugg mesurer sa bopp xool la la nekk en l'aise nga jënd ko mais boo duggee ci garage yow donc li nga fa fekk rek loolu nga mën a jël amoo choix amoo choix loolu nga fa fekk loolu ngay jël mais dafa am loo xamante ne ñooñu lañ dénk loolu yow mënoo ci dara te doo ñëw fekk borom biis muy yeb cinq oto bu war a def trois mu yeb ko cinq nga ne ko noonoo non deux yi dañuy wàcc mënoo ko amoo capacité bi li nga mën rek mooy obligé yéeg ci te aussi tamit euh, ñu ngi ñaan aussi tamit takk der yi ñu jàppale ñu ci loolu aussi tamit ñu sévère ci loolu ñu góorgóorlu aussi nit ku nekk tamit am nga ci part de responsabilité ndax oto bu takk mbaal romb la la mu teg ci kaw ëpp poids li nekk ci suuf loolu risque la te ngay romb ay nit tataay da ngay gis nit lang ba génne mhm. mhm. yaramam bépp génn ci biti yaramam bépp génn ci biti tamit loolu euh, aussi dafa nekk loo xamante ne mhm. donc war nañ ko xoolaat dañ ko war a xoolaat dañ a xoolaat aussi tamit ku nekk daal am nga si part de responsabilité da ngay dugg sax yow client day dugg ci oto sax mu xam ne lii dafa fees chauffeur ne la wàccal wala emprunté ne la wàccal nga forcé ba yéeg mhm. mais loolu lépp lan la ci ñëpp la ci mhm. responsabilité ñëpp la mhm. aussi tamit ñu góor góorgóorluwaat ñu ñaan président Macky Sall mu sàmm ndaw ñi te aussi tamit mu teg daani wax ak nit ñi ñu góor góorgóorlu yàlla baax na di ñaan sam borom xare leen àjjana te yéexee ñu yàlla ñi tëdd hôpital yàlla fëgg seen bopp ci barke yonent bi ñu jot si jàmm ak salaam. Mhm. ñu ngi naanal ñëpp jàmm. Mhm. aussi tamit ñu bañ koo yemale. ci personnaliser ko ci affaire de mhm. politique. wala Macky Sall wala Sonko ñi naan Macky la ñi naan tëggu tëggu Sonko yi la ñi naan nangam la. nangam loolu du ci dara bakkan <laughs> sans borom moo ko moom. Uh-huh. moo koy jël saa bu ko neexee ak nu mu ko soobee. Uh-huh. Uh-huh. dañuy ñaan sans borom defal ñu jàmm. ak tawféex. kontaan nañ nag. président moom acte bi mu def. acte bu rafet la. kontaan naa ci. waaw la fait que mu dégg ko déplacé wu ak moye yi dem masawu askan wi euh, loolu lu ma rafetlu la te loolu moo ko war sax loolu moo ko war loolu lañ doon xaar ci moom ñu ngi koy sant di ko gërëm et puis tamit maa ngi koy ñaan ñooñu noonu ndaw yooyu mu jëm leen a couvrir jëm leen a jàppale mm-hmm. am ay accompagnant yoo xamante ne tey mën na leen cee jàppale Mm-hmm. ndax ñooñu ñëpp soxla nañ ko fi mu toll nii. Mm-hmm. waaw ñu ngi lay jaajëfal waaw ñu ngi lay jaajëf kontaan nañ mm-hmm. tamit. amati mbégte sonalati la. waaw non yow fii sama kër la fii sama kër la. <laughs> ñun ay ndaw lañ rek boo xoolee ñun ñu ko seex ñëpp ay ndaw lañ. te ñi faatu ay ndaw lañ. te réew mi ay ndaw a ko yor. kon ñun ndaw ñi ñoo gën a bien placé pour wax. ndax mag ñi liñ mën rek mooy. yéene ñu lu baax waaye lu baax ñu ñoo ci war a jiitu ñun ndaw ñi. ndax ndax wax dëgg fa yàlla aussi tamit réew mi baaxee ñun la baaxal su bonee ñun la bonoon mm-hmm. que ñun ñooy defar réew mi mm-hmm. ñu ñu jéem a góorgóorlu daal. Mm-hmm. yàlla baax na kontaan nañ. Euh, maa ngi remercier sa copain sama gaayen <laughs> ak sama waaju baax ji maa leen di siyaar abonné yi nag maa leen di wax ngeen gën a abonné. dëggantaan topp suñu seen bi. seen bi seen chaîne la mhm. waa gis na ngeen gën yokk abonné yi ah. ay te ñu ngi leen bëggee bu baax waay mais bëgg la bu baax a baax Ouz bëgg képp koo xamante yaa ngi ñuy bàyyi xel Télé Sénégal la woon ak mhm. euh, Mister Ouz di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci yeneen programme jërë ngeen jëf